tuddee ci internet bi ndax dañu leen a mujjee nax journal bi nee na am na ku tudd Aminata Seck kooke nag dañu ko nax ndax nee na ci internet bi si la commandé benn téléphone waa ji mu jot na ko yónnee ma xaaju téléphone bi ma daal lay indil téléphone bi ba ma ko joxee xaaju xaalis bi ci téléphone bi ba léegi maanaam jotugul dara journal bi nee na am na tamit ñenn ñoo xam ne ñoo ngi leen ciy nax naam ñenn ñi si yëngu tamit jamono ji seeni mbir ma ngi dox ma dox ñëw ci yéene kaay gi de la Soleil mu xëy di ñu xibaar naan ñu séminaire bi gouvernement bu Sénégal ak gouvernement bu France doon amala Amadou Ba premier ministre bu Sénégal nee na France jàppale jàppale na Sénégal lu toll ci cent milliards moom premier ministre bi nee na tamit ñi nga xam nañuy waa France ñoom jamono ji maanaam pare nañu ngir jàppale Sénégal ci lu jëm ci wàllum relance économique yéen kaay gi di Sud Quotidien ak L'As xëy di ñu xibaar naan ñu maître Kaba ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllum forces armées démb ma ngi woon ci assemblée nationale ab budget xayma nañ ko ci cinq cent treize milliards budget ministère des forces armées yokk nañ ci lu toll ci neuf milliards na nag député Samba Danga niki na kon nag ñun ñaawlu nañ bu baax a baax armée bi nga xam ne ñoo ngi leen di dugale ci lu jëm ci wàllum politique maître Sidiki Kaba la mu ko tontu mooy ñun armée bu républicaine la ñu yor yéen kaay gi di Vox Populi xëy di ñu xibaar na ñu Aliou Ndoye mi ñu dénk wàllum environnement bu tamit moom tamit ma ngi woon ci assemblée nationale nee na lu jëm ci quarante cinq milliards yi nga xam ne moom la ñuy wax ne moom la ñu jëndee arme loolee amul benn scandale boo xam ne am na si moom Aliou Ndoye nee na nag matériel bi léegi te ñu livré ko Sénégal yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu préfet bu Ziguinchor Sonko sigi coor fa mbaxana doone benn ca kanamu cour suprême ndax nag Ousmane Sonko bi ñu koy dog di fal maire bu sigi dafa soppiyoon li xam ne mooy mbedd yi ak avenue yi tudde ko yeneen tur maanaam dafa ngénte waatuur avenue yi ak mbedd yi maanaam rue yi waaye nag bu sigi coor dafa jëloon mbir mi kalaame ko ca cour suprême cour suprême jox na dëgg préfet bu sigi coor yéene kaay gi di enquête di ñu xibaar naan ñu Pape Alé Niang tey ji la ñu ne ñooy taskatu xabaar yi di sàkku ñu daal di koy bàyyi Fadilou Keita bu Pastef moom démb am na retour wala ñu firi ko yéen i kaay gi délibération xëy di ñu xibaar nan ñu ñi nga xam ne ñuy waa impôt nee ma fisc bi jamono ji nag ñoo ngi topp buggaan gi dani ci lu toll ci trois milliards yu fekk juróom benn téeméeri million yéen i kaay gi di wal fajri xëy séq waxtaan ak ñaari économiste kenn ki di économiste Maysa Babou kenn ki di Souleymane Keita li waral waxtaan wi nag ñi nga xam ne ñooy waa wal fajri dañoo gis na Sénégal saa suñu xëyee bor bi di a na taxi yi ak impôt yi nga xam ne état bu Sénégal annulé na ko ci yenn produit yi loolee bokk ñàkk xaalis trésor public du am xaalis nee na tamit yi nga xam ne état bu Sénégal moo ngi koy def ci yenn produit yi loolee bokk na ci li tax Sénégal amul xaalis bay lébu xaalis yokk si nag cash transfert professeur Maïssa Babou nee na Sénégal fi mu jëm baaxul ndax nee na nag ñii nga xam ne ñooy njiit yi dañuy jël xaalisu réew mi di ko sàkkal pexe di ko dugal foo xam ne wàllum politique la économiste Souleymane Keita moom nag nee na Sénégal bu bëggee nag bor yi bañ a yokkoo il faut que ñu bàyyi importé bi nga xam ne moom la ñuy def ndax fii bëri na loo xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci réew mi bitim réew lay jugee bu ñu bëggee nag dette bi bañ a yokko il faut que ñu def li nga xam ne mooy production nationale maanaam li ñu soxla ak di ko lekk mu ñoree ci réew mi yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu dikki démb tribunalum Ndakaaru toj na ndax dafa am benn sénégalais ak juróomi jigéen ñoo xam ne ñoo nga bàyyi ko ca réewu Maghreb ñoo xam ne teg nañu leen loxo li ko waral ak ñii ab réseau boo xam ne dañuy yëngatu ci lu jëm ci wàllum cagatu maanaam képp koo xam ne yaa ngi def nag prestation sexuelle boo soxlaa ay jigéen réseau bii ngay jokkolu ñu andi li nga soxla ci ay jigéen Nigeria benn marocain bu tudd Samira moo taxawal réseau na nag journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy waa section de recherche bi ñu leen signalé na leen am na benn réseau boo xam ne ku soxla ay jigéen ñoo la koy andil nga fay na si la nag waa gendarmerie daal leen di infiltrer section de recherche seen élément bi dafa mel ni nag ab homme d'affaires libanais waxtaan ak moom na ko man dama am prestation sexuelle ca diwaanu Mbuur dama bëgg nga andil ma ay jigéen ak li nga xam ne mooy drogue ñu waxtaan ba juboo benn jigéen bu nekk deux cent cinquante mille la ñu ko war a fay journal bi nee ñi nga xam ne ñooy waa gendarmerie ñoom seen bopp ñoo organiser li nga xam ne mooy prestation sexuelle bi ñu andi leen jigéen ñi andi leen drogue bi ci noone ci la ñu leen teg loxo démb la ñu leen doon atte fukki fan ak juróom ci weeru décembre la ñuy xam seeni mbir fan la fare yéen kaay gi di esat xëy ci mondial 2022 bii xewee ci diwaanu Qatar tey ji la quart de finale quart de boo xam ne ay star planétaire ñoo koy football journal bi nee na Brésil ak Croatie tey ji la diggante Neymar ak ki nga xam ne mooy Modric waaye ca beneen match ba muy Pays-Bas ak